jaam ak pexem yàlla ak dogalam. après combat woo ko. man adversaire moom du ma bëre yow sax di yor sa numéro man moom buñ seggee rayante day metti rek bu jeexee jeex na nag waaw. kon kon su ma déggee nii fi noonu nii buñ la seet suba suba sa diggante moom wala fa non kooku kooku isa dina bëreetee ak man kooku te moom pare naa si ay mbiram <laughs> parce que moom koo rek mu delloo avance kooku signature man ba ma signé moom ba pare laa xam ni kii moom jarul sax may dem di ñaanlu moo ko jàppee dama koy daan. ndax mbër da ngay ñeme quoi man gëwuma mbër mu ragal góor du yërëm góor te góor du ragal góor. kon yow ngeen defee signature da ngaa sant ci moom ak ak tapet. non kooku kooku ba ma ko gëddee la njëkk a ruux yéen yéen a ngi woon foofu <laughs> tarkindaa bi sax da doon reetaan <laughs> noonu la demee nag. mais la may wax chaque jour victoire noo ko amee baax na arbitre c'est le maître du donc moom ñëw na ñu jox la victoire euh, ginnaaw bi nga ñibbisee. non victoire bi dëgg la neex na tey si ñi ma àndal mais man neexul si man ndax man li ma entraîné làmb joo xamante ni daanaka ñaari at ak ay quelques mois tan kooku noonu nit ku si parewul mënatoo pare sa àdduna man làmb ji dama see daj lu metti maas samay liggéey yëpp laa jël kale war na sëriñ tuuba lépp lu ma yor ma xëpp ko sa làmb ji ba jeex tàkk billaay wallaahi du li may wax nii bu dee caaxaan la yàlla bu ma daanati mbër làmb ji li ma si def si xaalis man góob ma ni sax Siteu ak Papa Sow def nañ ko si làmb ndax boobu man dama soxla woon làmb làmb ji dem naa si fu ne def naa si lu ne mais nag yàlla moom moo ko bëggee noonu ñoom tey ñoom xëy na victoire bi neex na si ñoom si benn côté bi si ñenn ñi mais ñenn ñi neexul si ñoom ndax ñun bu ñu jógee stade di ñëw comme ñun ñoo daanu ndax neexuñu buñ sañoon dañuy bëre wane suñu bopp def waaw ñun loolu loolu lañ xam quoi muy dal xam nga fépp di toj. nga am victoire boo xam ne wax dëgg benn benn mag daf ma mës woon ne ma mbër laa mbër laa taxul nga doon mbër mbër mën nga am ay millions am ay milliards bëri jàppale mais soo dul bëre doonagoo mbër mbër da ngay bëre di daani mbër mooy tax nga doon mbër noonu la demee nag. Hmm. nga marqué sa sa sa sa quatrième victoire. waaw muy sama quatrième victoire ma koy sant nag yàlla bu baax a baax waaw di wax ne waa yëmbal lii du dara quatrième victoire bi am na yeneen victoire yi desaat man gëw ma daanu si làmb dama gëm di daan rek di dem si kàttanu yàlla ak mbaaxam. daanu si làmb déedéet. daanu si làmb comme di dem naan ay damay daan wala di xel ñaar gaw ma loolu di daan rek di dem si kàttanu yàlla ak mbaaxam. actuellement fi nga toog nii. koo xam si ni tey bu avance bi ñëwoon nga jël ko. non combat bi ma si jugee jox nañ ma fi grand combat. Ah si arena bi barke Serigne Touba. grand combat lañ ma woo bi ma jugee si combat bi si su guddi gi woo nañ ma jox ma grand komba arena bi ma xam ni kan man sama cër dafa nekk si làmb. buñ demee ba mu man mi nga xamante ni tey def ma dara si lamb daanaka ñu may woo di ma jox ay grand combat kan na ma koy sante yàlla mais nag xam nga nit ku ne da nga am staff man bañu ma bëre man bu doon suba làmb am suba ñu ne ma kaay bëre damay dem bëre mais nit nag boo amee ay njiit am ñu nekk si sa ginnaaw tey munoo def lu dul déglu leen bi mu waa sama waa staff tam bi ñu waxtaanee ñenn ñi bëgg nañ mais ñenn ñi tamit bëgguñu ndax dañ ne dafa teel mais man moom dara si man waaw comme nag demee na noonu damay toog di leen déglu rek ñoom ñooy décider rek lu ñu décidé rek mu bëri bu ñu ñamoon bëreel ak Balla Gaye suba mu bëri te barki Serigne Touba yëmbal bu ñu jugee jàppale ma ma indi leen roi des arènes barki arxuraanu karimu yàlla bi. léegi actuellement yan adversaire nga bëgg a bëreel ñoo xam si ni moom lamb boole na nga xam ne wax dëgg yàlla parce que 4 combats 4 victoire ku ko defit wax dëgg yàlla invaincu kenn daal laalagoo suuf wax dëgg yàlla laa bañ ci laam. te bëri yoo xam ne ci diggante 4 à la nekk ñoom it laalagun suuf. waaw mais gis nga mas moon du ma may benn mbër bës waaw yéen ñun ñëpp ñoo yem fi muy man muy yow muy keneen kenn amugu ci bës wuy ma ñun ñëpp ay mbëri fi ne même mi sax yow sax mbër mu ndaw laa waaw gis nga maanaam daa mu mbëri yoo xamante ne tey même même même même tey jii nii yow soo waroon bëree ak ñoom sax wala ñoom ñu bëgg la sax soo leen laajoon tey si télé bu leen promoteur dem seetee xam lu ñuy wax noo koog du ma moom ndax xam lan laaj bi ma laaj man ñi ma war a bëreel mas yow xam nga leen daa xaaral tey cité ses adversaires taxul nga bëri ñoom xam ne yow ñii la booleel ñii nga war a bëreel mais taxul nga bëri ñooñu mais nga wax la nga xam ne moom mooy sa jaadu mooy sa rek parce que am na yow ñoom duñ la may sens doo leen ñaan sens parce que ay adversaire potentiel nga li ñu def rek nga fi def xam nga xam nga bi nga fi mujjee ñëw daa am benn wax bu ma la waxoon man la Liss Ndiago bi ñu ko yóbbulee sama avance boob mi ngi def trois combats dañu du bëreeg man te boobu man maa ko laaj te dañ ko yóbbul sama avance mu du ko yóbbulee sama avance dañ du bëre man mu dem jël dofu jaaz ta mbay xadaar sax jël na ko ba mu mu dem jël dofu jaaz parce que xam nañ li nekk si jaay doole man sama avance ku ko jël ceebu armée la de da ngay guerre de ratatat bi moom foo toll da nga koy dégg da ngay tëdd di nelaw sax di guerre doo am jàmm te ñooñu maa leen gën a tàng maa leen gën a metti man bu ma génnee rek yëmbal day jug gox bi mu dëkkee la man dëkkul lebu laa dëkk muy yëmbal fii waaw mais gis njaago mi ci avance mbay xadaa dafa nekk si blessure mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi defarwaat waaw moo tax bi fi des ay quatre combats ay cinq combats vraiment nga xam ne ñoom fi ay combats soog la. waaw ah, Mass ma fi laaj benn mbër mbëri xamante nañ suñ biir bu baax. mais daal lenn daal moom laa leen wax sama avance ku ko jël boo tëjee doo nelaw moom loolu wër na ma. Pokola ñu ngi koy wutal adversaire kenn ñu ma ko jël. Pokola waa lamb la lamb la man moom ñaan man moom li des ci sama carrière du ma bëriwaat ak mbër boo xamante ni du ma ko wax samay nit ñu naan man ay kii kii kan la kii kan la man moom adversaire bu may jël. kenn ko laajte ci lamb fi doon nii Pokola xam nga ko jarbaaru Ama kenn du ko laajte ci lamb fi doon nii. jarbaaru kan la. Ama Balde. waaye sax na ñëw ñu bëri maanaam man jarbaatam Ama si wàllu boppam moom na ñëw ñu bëri. d'accord mais dañ wax man dama fee bàyyi nit. maam yow dama la wan ni bàyyi ma fi nit. dama laa bëgg wax ne la comme Pokola ñu ngi koy wutal adversaire booba léegi gars yi di daw. di teew yaa ngi nii ma naar naar yaa ngi waa moo kan naar bu mag baa ngi nii nag. ma naar naar baa ngi nii naar bu mag baa ngi nii. naar bu mag baa ngi nii Pokola bàyyi wu ma ko fi naka avant ngemb lépp lu muy tax moom pour lambam na ko taxal ñëw ñu bëre. yee noonu la demee. maa xam ne mbàccum gerte nga bëgg te ne mbàccum gerte bañ na ko moom ay dóor mu daanam la yor waaye xam nga dóor mu daanam la yor moom kooku bu ñëwee dóor dañ koy rési dañ koy remise moom mooy jee wàcc si kattanu yàlla ak mbaaxam. avance nga nga bi bu ñëwoon léegi ma waaye yow defar si ceebu jën bu mool nga man lan. <laughs> am na beneen xale 4 combats 4 victoire yam a ba Bébé Cité Fathor moom bi mu duggee géej waay soriwul sa géej xam nga la Pape Thiam la fi mujjee daan. Pape Thiam la fi mujjee daan waa baax na. lamb daal mu ngi kanam mas ku ma lamb booleel damay bëre ak yow. ndax am nañu nekk sama ginaaw tey jii moom bu ñëwee waxtaan ak ñoom luñ de rek jeex na nee naa la Balla Gaye ak Modou bu ñu leen rangale woon nii yàlla xam na ne ñi ma àndal na ma jël leen ma jël leen bëre ak ñoom Siteu Fathia laa wax de nee na gaal gi moom foo jaar ku ci yéeg moom di nga ma fa ngay la neex. waaw gaal gi ku ci yéeg mais bato ak gaal dañoo wute man bato laa yor booba waaw man boobaa bato laa yor. bato bi day yëpp gaal gi. waxuma laa gi yëpp mais day rajaxe gaal gi dem yoon ak nga naan lan. <laughs> xam nga bato gaal fu ñuy fu ñuy nappee kuy ëpp yi jën. xaw ma lamb jaaxal booy boo tegalee ay victoire di dóore ah di daan duñ la ñemee jël moom boobu ba léegi ñu ngi ko bëgg adversaire kenn ñi mu ko jël te yow mii fa nga jëm de yow mii di nga toog fii bëgg a bëre doo bëre de léegi tey ngeen jël jël jëlal seen biir wala ñu defal leen ko tournoi. déggoo li ma loolu ma gënal sax man dama bëgg booy yi nga xamante ne mosuñu daanu booy yi nga xam yàlla sutural na leen kenn mus si daanu te am tur si làmb am cër si lamb la bëgg ñun ñëpp ñu boole ñu defal ñu benn gala te xam nga kan laa bëgg mu tëgg ko ah Fallou Ndiaye moom mi nga xam moom moo génne mbër yëpp mu leen di yàgg defal loolu moom laa bëgg moom mu taxawal gala boobu man laajuma ko ñaar rëm na ñëw waxtaan ak gars yi rek waaw. production ren moom yaramam dafa tàng ndax moom lu mu jógee rek dugg ci la des macha allah jëm ci journée bi mag la neuf allah. moom ibil nañ ko bunte promoteur yëpp ibil nañ leen bunte yëpp instant bii moom li ñu war lépp ñu ngi si lamb bu dee suba sax dañuy bëre ndax pare pare nañ ba pare. waaw dégg nga xanaa déggoo li ma wax maas si moom la des si moom la des non alliance Baldé kook ragal la. ñëwoo lekk avance am kooku kooku ñëwoo lekk avance am. alliance Baldé bi ñu koy yóbbulee sama avance dégg nañ li mu wax xaalis bi muy laaj bu ko bëggee day dem pour pourvu jiwaat kooku dafa tardé si man du ma may nit ku nekk saako yi. alliance Baldé fu nekk saako yi nga jógee ci victoire mu jógee ci victoire te yow laale woo moom laala na xeex na bëri na. alliance Baldé ñaata defet la tegale alliance balle ki ko jox ndam xam naa ko. ki nga jox ndam lii nii ki nga jox ndam li mu am nii xam naa ko te buñ bëree dama koy daan alliance Balde moom. moom xam na man xam naa <laughs> te bu jëloon sama avance moom dina comprendre. mais dama ko <laughs> ah, yi daal bëri na moom mais moom comprendre. ruq parce que boo nekkee ko jox ndam li. <laughs> ah l'essentiel daal moom ki nga jox ndam li moom xam na man xam na alliance Balde du ngaak xam na lépp fi ma waxee xam na ko bu baax tale nag lañ nekk mais bis bu jëlee sama avance dina xam ni du dërëm. kooku bëloo mel est ce que yow ñeme ngaa jël avance euh, avance alliance Baldé ba pare sax. yow maa seega da maa dese xam. kon nag laa lay wax de borom dóor mu daane 5 kaaw la def. waaw ñun nag. comme comme 5 kaaw xam nga ci génération bu ndaw moom amul kenn ku ci def cinq kaaw cinq kaaw la alliance Baldé def. waaw 5 la def. ñun ñëwuñu si làmb pour ay dóorante pour muy daan da xam la lañ ñëw bëre wane ni dañoo mën a bëre. waaye alliance Baldé doo ñu bàyyi yow. waaw loolu daam ñoom koy def. ñun bëre moo dee si yaram ñun dañuy bëre ba daan nga ñuy laaj nan lañ daan ñu la xool vidéo yi ñun xamuñu sax nuñ daane ñun boo ñu yan woon ba téye ñun nii sax gëmu nañ ni ba tey dañuy bëre ñun loolu lañ gëm quoi mooy li ma la léegi rek làmb fi mu toll nii yàlla ma yàlla suturaan mais gaw ma si daanu de daan rek laa gëm waaw. dafa mel ni waa Tëngéej ah, ay ay ay Grand Dakar côté yooyu dafa mel ni ñemewu leen quoi. Mm. Tëngéej xam nga yow da ngaa xam yi nga war a bëree ba pare ah, naan su ma leen turee ma leen ma bës fii kenn mayul kenn bës waaw mais man mayu ma kenn bës li nga moom mooy li nga wax léegi rek mas man ma xale bu ndaw si lamb dëgg na xale laa si âge mais duma xale bu ndaw si lamb bu ma taxoon ngem ba dongali da nga naan kii magum jëmm la mbër dëgg la catu ma nag sama bopp macha allah dama koy sante yàlla man bu ma demee bañ may cëralee si làmb rek kan dama dama koy sante yàlla bu baax ndax am na ñu ma fi jiitu woon tey li ma yàlla sutu li ma yàlla suturaal ba mu am ko nii xëy na ñoom amuñu ko mais nag loolu yàlla moo koy def njiit yàlla moo koy def si doomu aadama na nag jiitooguma mais damay ñaan yàlla yàlla mi nga xam moom mooy jiite yàlla na ma yàlla def sa kaw sa kanam ma raw ñëpp roppi leen taxaw di leen xaar na ku si ñëw may la loxo si booy yi ngay wax noonu yëpp xamul tax instant yi mënu si wax dama bëgg ma am ñu def ko kalaaf boobaa si la ñuy xam ñi mën ak ñi mënul waaw boo xamante ni bu leen neexee na nekk dix personnes man bu leen neexee sax man ma samp bëri ñëpp est ce xam nga sa diggante ak doomu Yoff jaadu na. déggoo li man pare naa pour tout bàyyi ma fi nit l'essentiel daal moom ki ñu may jox na nekk mbër. doomu Yoff laa la wax ke doomu Yoff moom gis nga wax ci lim toog. waaw waaw doomu Yoff si toog loolu moom loolu moom la moom la. toogee ci victoire toogee ci victoire. waaw loolu moom loolu moom la. dugg génnaat. waaw avance bu mu dugg génnaat. waaw jeex na ibil nañ ko bund bi. sa diggante doomu Yoff. ibil nañ ko bund bi. pare nga. parce que Serigne Touba pare naa. waaw na ñëw ñu bëre rek. kooku noonu doomu Yoff moom noonu ngay wax bu neexee drapeau bi sax man maay wut maanaam ki ñu koy prene ah barki Serigne Touba ma jox ko nit mu del ko si far la force jàppale ñu ma ñëw jàpp ko daan kattanu yàlla ak mbaaxam te boobaa sax li si la nit ñi di gën a xam kon mooy jaay doole maas gars yi xamaguñ ma de après dinañ ma xam de maam dama bëgg combat soog comme li Yékini ñëwoon nag combat soog laa bëgg man dama bëgg combat soog combat bu metti boo xam ñëpp dañ naan mënu ma si génn ma ñëw yàlla suturaal ma ma génn seeg jàmm duggee commencé ko pare xam booy yi nga xam ne actuellement ñoo privé te nangoo nangoo leen nangoo leen. waaw mais man instant bii nii man booy ma war a bëreel xaaj bi yëpp am nañ combat xaaj bi yëpp am nañ combat di ñu ma war a bëreel xaaj bi am nañ combat waaw ki su mel ni caatu rëbës man ak moom làmb la Liss man ak moom làmb la ah? ah ak kan nu mu tuddee bu Ngor mhm. man ak moom làmb la mhm. te ñoom ñëpp am nañ komba waaw ñoom ñëpp am nañ combat Lassander man ak moom làmb la. Lassane Dior moom bàyyi bàyyi leen ko ñaan chance gone gu ko ci moytuwul gis nga keroog digganteem ak digganteem ak trompeur bu Cheikh Mbaba baala tontu la. waa gis nga trompeur la Dior da kaa trompé parce que dafa jël avance ba pare am lu muy sikki saak man su may bëreeg nit koo xamante ne moom a jiitu si làmb lépp maa koy def du ma ko may dara moom lu mu war a def damay ñëw foqati ko def ko ndax man maa xale man maa bëgg. est-ce que xam nga ne Lassane Dior dina ko amel bor. Lassane waaw sërëm. waaw nee na moom duggaat na yëbal mooy fayeeku na ko waaw na ko na ko on sait jamais lamb mi ngi suñ kanam xam nga tubaab bi dañ ne jamais deux cent vingt trois te dara yemul noonu la demee nag vingt trois lépp bokk te dara yemul adduna ah yee mi ngi noonu SBT Média la seen émission seeti mbër ñu seet ki nga xam ne moom mooy jaay doole jógee journée mag diggante Siteu ak Papa Sow Pape Abdou Fall moo fa di leen félicité waaye di masu ah, amateur yi keroog liñ dund ci làmb vraiment di wax ne mi ngi noonu waaye ñu gën a xoolaat làmb gën ko defaraat waxtaanaat rawat na keroog ñi nga xam ne ñooy waa diaspora bi jënd seen ay code ah di xaar pay-per-view bi di xaar dund làmb ju neex vraiment mu demee noonu di wax ne jaama pexe yàlla ak dogalam xaj na loolu moo gënoon si ah, li nga xam ne si nii moom mooy làmb ji di ñaan suñu borom def Sénégal ah, réewum jàmm réewum naataange ah, yàlla ma ñu xéewal élection yi jëm muy le 23 janvier suñu borom def ci ndam Sénégal am ndam maa ci ci côté li may wax chaque jour démocratie ñu voté ci jàmm mu jeex si jàmm senegal kon na ñu kon na liggéey réew mi senegal jëm kanam mais ñu ngi ci cëppaandawul émission bi te ko li duuf si nag xëju si cin li te li si ci ni ko jël coo topp la macha allah di nuyu nag ah madame Dieng nga xam ne si macha allah ndékk li tabaar fa kàlla macha allah yee ndékk li mel nii moom tabaar kàlla ñu bàyyi la sant gërëm ñu lay jàppale. waaw damay waxaat ne maa ngi santaat yàlla bu baax di julli si yonante bi di sant sama waajur bu góor di ko ñaanal yàlla fa tëdd yàlla na ko gënal fi mu jóge làmb ji loolu rek moom moo nekkoon li nga xam moom si doon manqué sama papa. maa sam papa li mu doon def si man gëw ma ne àdduna est-ce que am na ku ko mën a defati si man moo tax saa yu ma wéetee rek sama xel day dem si moom yàlla nag moom moo mën mais man yàlla jour bi muy jël sam papa bu ma tàggu woon man mënu ko jël ma sax mu yóbbu moom nga bàyyi fa sam papa ndax man mënatuma am papa bu mel noonu si àdduna fi mu jëm nag yàlla na gënal fi mu jóge yàlla na yàlla oyofal suuf si kawam yàlla na yàlla yóbbu si ajanay firdawsi ya man su ma naree dem ajana te sam papa du fa nekk yàlla na ma yàlla yóbbu safara yóbbu ko ajana ndax man munu fay sam papa dama daan toog naan bis bu ma yàlla dimbalee ba ma yóbbu sam papa ak sama yaay max ma suñ borom bi jël jour boobu noonu ndax deseetuma dara si àdduna deseetuma dara ndax ñoom rek laa sama papa dafa ma bëggoon tegoon ma foo xam mosu fa teg nit mu nekk caatam làmb ji am na benn instant boobu damay jékki-jékki di ko xalaat samay rongoñ di tuur ma jour bi sama papa di génn àdduna mook sama doom bu jigéen sama taw ñoo bokk benn jour bi mu aduna bis boobu noonu moom ma gën a naqari sama àdduna te du ma am lu ma gën a naqari loolu noonu sama àdduna mais nag dama koy sante yàlla bu baax a baax yàlla rek moo ko sañ mais du doomu aadama di sante nag ñi nga xamante ne ñoo may jàppale ku si mel ni se i bàyyi jabaram bàyyi doomam ma dalee bëre ba léegi mu may topp di dégg lu ne di yëkkati xaalisam di ko def si man munu ma ko fay mu koy bàyyi ak yàlla yàlla mi am fayam yàlla na ko yàlla fay di sant Madiagne moom it comme noonu combat bi dafa dem ba moom mujj gi sax dafa am pression ndax fu nit tourné Madiagne Madiagne Madiagne ak Idi Sibéeru xam nga di sant Moussa Niang mi nga xamante ne tey jii nii ñun biñ gisul suñu papa moom lañ gis ndax lépp luñ mën di xewle dina yëkkati xaalisam même bu dee juróomi dërëm dina ko bokk ak ñun même bu dee cent franc dina ko bokk ak te li muy yóotu nii muy maire bi yàlla ko suñu borom bi may nday sukay tamit dañ koy sant di ko gërëm suñu yaay bu baax la moom it li muy yóotu muy maire bi yàlla na ko suñu borom may xam nga di sant Modou Mbène suñu papay bopp ki nga xamante ni sama yaay moom moo ko moom moo ñu jël jébbal ñu ko boppam moom it dañ koy sant bu baax a baax a baax di sant ot ministre bi sama combat bi dafa ma si defal loo xam nit mosuma ko defal si làmb xaalis bari lay yëkkati jox ma. billaay wallaay te bi ma ko xamee yàggul mas combat bii nii lim lépp lu ma manqué woon rek combat bii dafa ma kaa may. ñu ma si jàppale sant naa leen bu baax a baax a baax di sant alaaji pees dérassé di sant sam papa garga munul nelaw suba munul nelaw ba bëccëg ndax làmb ji ibu sam papa moom it di sant karaak sam papa ndax nit ku ne boo demee ba gisatoo say say waajur bu góor bu fi jugee nga yàlla cërale la ay magi góor kan ñoom ñooy say papa kan man baatu sama papa sama papa man ñoom ñooy samay papa mënu ma xa bañ ndax dañ ni mën nga mag sa papa waaye say mag kenn mënu leen mag kan ñoom cëru papa bi dama leen koy jox ba mat sëkk ma leen sant bu baax di leen gërëm di wax ne garga naka mbari jël yëmbal fi li ñuy wër lépp mi ngi si garga naka mbëri jël caatu yëmbal yàlla na ko yàlla may ndam lu dàq sama ndam li Alioune Seye sama mag sama xarit kooku damay conseil loo xamante ni tey jii nii xoola man dama naan kii li may conseil nii est que moom nit la. professeur day dajal le professeur de la professeur kooku bu ko yàlla faye xolam waxuma la le professeur de mais ba moom ak sax da kay daan ki Serigne Touba ku rafet xol a ngi noonu waxatuma nag Baye Ndiaga Baye Ndiaga sama combat bi comme lambam la 5 heures du matin la may yee ne ma mbër nañ dem entraînement su ma bañee sax daf may force yóbbu moom ak boo yembal combat bi dañ ko defoon ñoom comme seen combat di sant sama waa écurie ñëpp di sant Matar suñu président écurie Matar moom it jàpp na sa làmb bu baax a baax lu ma manqué rek su ko yëgee day yëgat xaalis jox ma Matar maa sant bu baax a baax xam nga di sant waa yëmbal di leen wax ne leen nañ jug jàppale seen doom yëmbal nañ jug jàppale seen doom te gis nga mas combat bii nii daam yoo xamante ne daf ma seen naqari woon bi may génn avant may génn pour dem stade dama si dégg ay coow yu bari si mbedd mi ba ay nit gaañu si te loolu jaru ko ñun mbëri yëmbal yëpp yëmbal la ñuy représenté yëmbal la ñuy teewal tey fii man bu ma doonoon roi des arènes mën na saf ñeneen mais du saf waa yëmbal ndax tax saa yu ma xëyee ñoom lay nekkal kan man mënu ma leen jaay affaire munu ma leen jaay dara mais supporters yi nañu ñu a xoolaat seen xel yi def yëfi supporter jéem a yéene nit ñëpp jàmm man de laa la wax bu dee am na mbëru yëmbal bu jug yëmbal ma lay yéene pour ñu daan la yàlla bu ma daanati mbër man bu ma sañoon mbëru yëmbal yëpp amay suub mais nag yàlla moom moo xam yàlla nañu yàlla defal jàmm te ñi fa am ñëpp yàlla na leen suñu borom bi may ndam yàlla na suñu borom bi may ndam ñoom ñëpp ñëpp ñëpp te groupe bi ñu bi ñu bokk muy yëmbal bi tamit yàlla na leen yàlla jàppale ba groupe bi nekk groupe bi gën si groupe yi nekk si àdduna yëpp di sant tamit waa yëmbal bu bees ñoom it jàpp nañ si lam bu baax a baax di sant waa yëmbal bu bees baax a baax waaye Bara Gaye nag moom laay waxal moom suñu monsieur le maire la yàlla na xëy yàlla defal jàmm mais nii muy doxalee nii man de moon man man baar man personnellement man jaay doole képp kuy ànd ak man bul votel Bara Gaye képp kuy nekk ak man bugguma nga nekk ak Bara Gaye ndax man mënu jël drapeau nit mas indil la ko jàppale woom nga dégg ma gisuma la ma am sama quatre combat saa yu mu ñëwee nga renvoyé ma ba du la gis benn bi ñu bi ñu mujj bi ñu mujjee ñëw dañu kam moom komba romb ñu daal dem yoonam xaw ma nag keneen nit ku ne yaa moom sa bopp waaye man moom sama carte Bara Gaye du ma ko sànni la te waaw. SBT Média la seen émission seetu mbër dégg ngeen mu wax adversaire yi mu fi wax muy ay làmb jaadu am na ñoo xam ne làmb moo leen boole. ah ñoom mayante wuñ chance ñoom làmb moo leen boole te làmb amateur la ay làmb yu neex ndax diggante Bébé Siteu Fathior 4 combats victoire kenn ku si nekk ñoom ñaar yaakaar naa ne ñu boole leen loolu loolu tàkkusaan la goo xam ne fo kenn laal suuf mi ngi noonu muy làmb ju neex bëri na tey booy lim booy lim doo fi jógee waaye di nuyu champion yëpp ah comme ni mu ko waxee rawat na 100 pour cent yëmbal maa a baax ndax bëri naa fi ay am da jàmm ay xarit ah macha allah mais seen final bi nag seen digganteeg arbitre yi loolu moom wax naa la njaw def noo xam ne jàpp ngeen reporter yi dóor leen ba ba def leen def leen fël-fël waaye bu leen arbitre di jàppee man ma match boobu neexu ba neexu arbitre laa si porté parce que man ku ma dóor moom damay jéem a fay wala ma xool ku ma la dóoral rek Malick Ngom Malick Ngom si toor fexe leen ba 100 pour cent yëmbal bu ñu leen gagné wax naa leen ko nag te man li ci des sax maa koy seere match bi quoi 100 pour cent yëmbal ñoom ñoom man arbitre yi day segg ñoom dañoo jël retrait <laughs> arbitre yi nag samay gaan lañ de keroog si stade bi moom <laughs> non arbitre ay borom baax lañ quoi ñoom it di sant waa CNG di sant tamit Pape Abdou Fall di sant sama manager Matar Ndiaye maa ngi koy sant bu baax baax ndax moom sonn na si man Matar Ndiaye dafa sonn si man xam nga day day day daj lu ne ndax mu bëree kan kooku dama koy sant bu baax te soxla wul sama dërëm kan kooku dama koy sant baax di ko ñaanal yàlla mi nga xamante ni moom mooy borom jàmm yàlla na ko yàlla jàmmal yàlla na ko yàlla dem ba def ko promoteur boo xamante ne tey jii nii képp ku sa rongoñ nar a tuuru rek moom moo la koy feral Matar Ndiaye bu baax di wax ne képp kuy wax asadu an laa ilaaha illallah wa asadu anna muhammad rasulullah maa ngi lay tàllal samay loxo nga ñaanal ma jàmm ñaanal ma saa yi mu bëree am ndam ak wér maa ngi ñaanal nag ñëpp jàmm di santaan ñëpp di santan ñëpp di sant waa Déggo sant Farba Africa naataange jàmbaar xama di sant Jokko ah di sant Mbindam waaw maa ngi sant daal ñëpp di sant Neexle waaw di sant boo xalaat waaw maa ngi sant ñëpp képp kuy représenté yëmbal rek maa lay sant di sant waaw waa ñëpp daal mu ma limee damay juum xam nga oui sant tamit mécanicien de roues yi sonn nañ sama combat bu baax ñoom laat laat laat laat combat bu garaaw moom la ma génneel fii laat maa ngi koy sant bu baax baax di wax ne képp kuy liggéey lu te mag si demal si laat moo fi mën barke Serigne Touba di nga sant di sant waa place am ñëpp waaw di la wax ne daal seen doom a nii salaam mooy nuyu ne sama rakk bopp ah macha allah muy Fatma Dia nekk reporter boo xam si ni wax du yaam nañ ko xel initiative bu rafet la jël ndax dañoo woon mbëri kenn mu leen boole ci gën tàkkusaan lu bokkul làmb ah, ñu gis ne tournoi bi def nañ ci fair play macha allah ah, cent pour cent yëpp bokkoon ci ñu dem ba final bi nekk diggante arbitre ak ñi moom mooy cent pour cent yëmbal di ñaan mu nekk final boo xam si ni final bu neex la ah, di wax que le meilleur wax nag Fatma nag nag final ba pare ba koo jël parce que comme yéen a organisé loolu ndam la organisation bi rek ndax doomu yëmbal moo ko organisé bu ngeen bëggee ba koo nag wax yàlla bu ëllëgee duñ mën a participer waaw di ñaan nag revanche diggante euh, reporter yi pour cent yëmbal loolu moom nañ waaj non stade Amadou Barry la duñ ñëwaat stade parce que dafa da nga faa miine keroog waaw doo da nga faa miine booy